asalaamaaleykum mbokki internet public SN TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci événement bi ñëpp doon xaar mu nekk ñëw mag Sall fii ci Sénégal démb nekkoon lundi 15 juillet la doomu Macky Sall bii di Ibrahima Sall doon takk jabar moom nag doomu milliardaire bii di Tahirou Sarr nekk wóllare papam la daal di takk mariage bi nag bi ko sénégal yi yëgee ñu bëri ñoo ngi doon xaar dellu ci waat ci réew bi ki fi nekkoon suñu njiit muy mag Sall ak soxnaam sii di Marième Faye Sall waaye mu mel rek Macky Sall dafa mujjee tas yaakaaru sénégalais ndaxte moom mi teewul ci bésu doomam bi waaye Marième Faye Sall rek moo ñëw fii Sénégal fekkee ci xew bi mbooloo bu takk nag lañ gis ci mariage boobee ku ci mel ni le chanteur du peuple Waly Ballago Seck ki fi nekkoon ancien ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr musa Ndoye Moussa Babacar Bokar Thiam Abdou Aziz Mbaye ba ki nga xamante ne mooy suñu actuel roi des arènes Modou Lo nga xam ne ñëpp xàmmee nañ ko ci nekk

Thank you.